jërëjëf mbokki Kayor Info News jërëjëf Cheikh Mbaye sama xarit euh, mu mel ni tey ñoo ngi Mérina Dakar ku ni Mérina nag ni président ay Aymérou Gningue ku ni Mérina ni euh, ki nga xam ni moo di Gora Ngone Thiam di suñu sponsor officiel ku nu xam-xam nu ak moom tey nag ñu am bis bu mag muy euh, di def ki nga xam ni moo di le ministre Abdou Fall président d'honneur xew wi président Aymirou ñu ngi jël organisation bi li ci ëpp dénk ko Gora Ngone Thiam ñoo ngi ci cëppaa ndaw euh, organisation bi waaye ñoo ngi dugg ci bis bi kon Gora Ngone Thiam lan ngay wax mbokki internet yi. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki internet ñi maa ngi leen di nuyu ñoom di leen xamal ni tey day bis bu rëy bi 6 janvier bii 2024 di ab sambi président ay Aymirou li mu seq ak monsieur Abdou Fall le ministre d' état. mu def ko fi à travers la commune de Mérina Dakhar muy en premier lieu une ambulance deuxièmement un central solaire teen Mérina ñu koy wax teen Mérina ñu tudd ko Cheikh Anta Diop bi mu ko defaree central bi mi ngi fournir trente mégawatts ah kon nag centrale la bu am solo ba pare centrale boobu mi ngi indi ay redevance yu am solo di ko jox commune Mérina chaque année une valeur de 67 millions kon loolu am na importance moo tax tey mu ni sama xarit sama kóllëre sama am di jam ki yéene mérina di la ministre Abdou Fall dama koy élever en citoyen d'honneur mom itam le président aymirou le président Macky Sall war ko takal ordre du mérite du lion parce que tam liggéey man nako ko si 40 ans yi xey le président aymirou def nako ci état di liggéeyal état pendant 40 ans biñ ci liggéey ba légui parce que ordre du mérite ak ordre du lion du ko jóg ñu takal la nit man na yag fenn nekk fa du tax ñu jox la kon une personne distinguée lañ koy jox

de remercier les maires qui sont présents nit ñi présent nañ gis fi le maire Modou Fall mi ngi fi gis fi le maire de Taïba Ndiaye ak yeneen maires yoo xëy ñu ngi en cours de route tam ñu ngi leen di remercier seen teewaay parce que nous tam du bàyyee lépp ñëw teew sa bis da nga ko war remercier ñu gis population de Dakhar yëpp wuy si tey lan ngay wax population Mérina dakar ak Kajoor di remercier toute la population de Kajoor de Mérina Dakar, de de diverses origines. laay wax parce que département de Tivaouane laay wax région de Thiès national aussi ak diaspora

Gora Ngoné Thiam tey ci bis bi merci beaucoup